moment moo ci gën a difficile Guinée Gambie les nouvelles au village yan moment moo gën a difficile ci sa exil moment bu gën a difficile ci sama exil bi mooy euh, bi ma demee keroog bi ma déggee ne am na sama benn frère patriote bi ñu rey en Gambie te mu nekk un jeune un jeune patriote bi exilé moom tamit ñëw Gambie nekk waa Grand Yoff booy bi fàtte naa tuuram sax ma mm-hmm. xaw a am benn trait de ressemblance ak moom sama njaati bi moo ñëw ne ma muy jooy mu ne ma Abdou xooleel kii ma xool ko man xamoon naa ne kii man ak moom dañoo xaw a nuuru ma ne ko lan la mm-hmm. mu ne ma kii xamoo ko ma ne ko xaw ma ko mu ne ma kii patriote la situation bi nga nekk bi la indi fii moom moo ko moo ko indi fii mais dafa décédé ma ne ko fan la décédé mu ne dañ ko retrouver au bord du plage de la plage. Hmm. dégg donc keroog bi moo waxee loolu jour boobu presque dem naa ba trois quatre jours yoo xamante ni du ma génn ci biti ci biir néeg bi lay nekk. parce que dama ne c'est fort possible li dal kii mu dal ma on est dans la même situation donc mu nekk moment bu difficile damay téye photo bi nii di ko xool di xool di xool bu mu yàgg rek sama rongoñ bi sori na mais damay euh, damay voilà damay tuuru rongoñ hmm. mu nekk xale bu ndaw amaana reyul kenn deful lu dul peut-être manifester sa sympathie envers un leader politique xam nga wu mel noonu. Hmm. moo ko indil situation mën na ki si attitude si statut boobu donc ma ne donc lii dafa nekk lu metti hmm. soña loolu moom bokk na li ma gën a frappé li ma gën a metti hmm. mais bu dee degré d'engagement la yàlla xam na ne aw ma benn sentiment de peur mais par contre dama yërëmoon samay fami comme ñu mel nii ñii parce que ñoom ñëpp sonnoon nañ ci trop di ko dund ak di ko dund yu métti. Mhm. di ñëw anyway xam nga every time kër gi di kii maire bi di moraliser maire bi xam nga jàppale ko. mais après yaa ngi doon dégg maire bi. waaw maa ngi doon dégg ndeg maire bi. Mhm, boo ko déggee. moral bi waaw moom bu ma ko déggee benn côté day soulager wu mais benn côté aussi day ànd ak euh, prudence bi waaw du bëgg sax waxtaan bi mu gën a sori. parce que dañ ko ne gars yi dañuy déglu on est tous sur écoute affaire yu mel noonu pour vous dire que sax samay xarit sax am na ñoo xamante ne sax dañ ma éloigné woon parce que y avait mes détracteurs qui étaient au village ñoo xamante ne ñoom ñuy prévenir samay xarit ne leen faites très attention seen compagnonnage ak diw mhm. parce que kii ci danger la nekk bis bu ñu koy jàpp dañ leen di yóbbaale te boobaa dañ leen di kii mhm. donc gars ils avaient pris la distance man j'avais compris tout cela mais dama xam ne loolu yëpp ci dund bi la bokk ci dund doomi aadama la bokk mhm.